aar suñuy soldaar suñuy jàmbaar ñu ñuy aar suñuy jàmbaar day ni ki démb daal dinañ leen di libéré waaye libération gu doy waar ndax seeni gilet pare-balles seeni casque waaye tam lépp loo xam ne yoroon nañ ko ci munition nangu nañ ko tribune yéene kaay ne ma suñu jàmbaar yi day jàpp nañ leen juróom ñaar la ñu woon waaye teggi nañ leen loxo gaayu CEDEAO yi nag ñoo wax ak Salif Sadio baa ko ba mu nangu ne dina bàyyi suñu jàmbaar yooyee Salif Sadio gannaaw ba ni bàyyi jàmbaar yi moom nekk fa woon waaye nag suñu takk der l'armée bi bàyyi nañu xel lool bàyyi gi ñu bàyyi sunu jàmbaar yi waaye tam anam bu ñu leen daal di bàyyee yéene kaayub dee média bi ne ma terewul ña nga xam ne ñooy gupp garab yi foofee ca Casamance duñu leen may jàmm làmb duñ leen may salaam tey la waalo aay ci daggakatu garab yi l'observateur ne ma nguur gi kay mujj naa négocier ak MFDC ba ñu bàyyi sunu soldaar si waaye la ca yéeme mooy ñoom rebelle yi day seeni arme de guerre doy na waar loo xalaat ci xeetu ngànnaay gu kéemtaane yor nañ ko niki démb lo mandaane loo ci mënti dégg jàppali seen bakkanit mu ngi ci xottu gerte de ndax dil ba nga xam ne am na ca jamaa werte wa di garab ya nekk ca Casamance soo moytul léegi mu kalaate booba élection locale yi jeex na ña ngay installé yi tribune yéene kaay ne ma ca funjuñ maire lakk fay teg loxo Lamine Ndiaye mi nga xam ne moo doon leader nekk tëdd de liste bu benn coalition ci élection locale yi foofee libération ne ma waxtu woowu ca géejawaay de seddoom suuf moo fa am gaaye nag laataa ñuy dem caxat-caxatee nañu suufas géejawaay gi ba mar day taali conseillers municipaux yi nga xam ne ñoo fa nekkoon ca commune yeeg département bu ville ba ñoom ñëpp ku ci ne am nga ca parcelle ña bokk ca nguur ña bokk ca opposition ku ci nekk nag ci suuf jox nañ la sa notification am sax suuf agent municipaux yi nga xam ne ñoo fa des ci géejawaay day ñoo mer ba futtu ndax nee ñu séddalim bukke lañ ko def bii bukki bii njuur bi sàmb source aanéma ma leeral la sunu gaynde yi nag fan leen di compar as suuf ca diggante ngor ak almadi ab titre foncier la boo xam ne juróom-ñetti téeméeri hectare la téeméer ak ñaar fukk njaboot yenu nangu woon seenu kër sa tobago foofa lañ leen di jox suuf waaye projet immobilier yee bu rëy biñ fi doon coow doon premier ministre mbaadu président Macky Sall dafa gis ab meseem critique yéene kaay ma en tout cas moom Amadou day mi ngi koy romb nii mu koy xool te mënu cee jot Dakar Times ma loo ci mënti déggit saa si tembe ak fi mbir yi toll président Macky Sall day moo lank ne du tabb ab premier ministre direct news ne ma ngalawaay buy tabb premier ministre na bàyyi xel lii may bëgg limal président Macky Sall dañoo bëgg gis ab premier ministre boo xam ne day doxal mbir yi Dakar Times ne ko wax ko ci kaw ndax fi mu ne Sénégal lépp taxaw dara bougé wul benn la ma direct news dama soxla nañu ab premier ministre boo xam ne xelam ak xalaatam dana ëmb ñëpp na ndaw ñi ngir nag bu buñ ko xoolee askan wi mën a am xel mu dal yéene kaay bi ne li tax ma wax loolu mooy ndaw yi day seenu ñaxtu ak seenu bëgg-bëgg ci réew mi mi ngi yokku saa su nekk yuuxu nañu wàllu fu ne te dara soppeekuwul bëgg nañu nag ab premier ministre boo xam ne saa si bu ñëwee coppite daañu ko nemmeeku ci réew mi ak lépp lu ko wër waaye tam gannaaw coronavirus bi bëgg nañ ab premier ministre boo xam ne day bu ñëwee dana yi ci jafe-jafe yi nga xam ne ñi ngi koy nemmeeku ci réew mi ak ci biir Afrique bëgg nañu it ab premier ministre boo xam ne day boole te du xaajale réew mi quotidien ne doyen Adama Gaydee ca keer ga mu doon dem dañu ko fa dàqee ni ko doo fa dugg te jàpp na ni loxol président Macky Sall génn ci waxtu woowu kay jàngalekat yi ñi ngi ci guddi gu bët setegul seen diggante nguuru Sénégal tribune yéene kaay ne ma ministre Samba Si mi nga xam ne moo yor xëy mi xam leen na ni waxaale daal duñu ko dëkkee ak jàngalekat yi te njortu nañ ne saafara léegi mu am ci vox populi ne ma Mohamed Diagne porte parole bu ministère de l'éducation xam le na ni ñoom ñaar ñëpp xanaa kenn du nangu année blanche am muy DKR 221 te njortu na ni crise bi saa si tembe dana jeex ci réew mi booba l'évidence yéen kaay daal damay xamal ne mouvement bu enseignant républicain yi day ña ngay rafetlu koppar gi nga xam ni président de la république Macky Sall teg na ko ci table bi ngir jafe-jafe teggeeku ci jàngalekat yi may mun a bu sa xumma ak yi gaayam xam le ni président de la république day du yem foofee ndax ak comité technique bi am na ay coppiteeg joyant yoo xam ne dana am ci wàllu matériel bi am ci wàllu koppar gi ngir jàng seenu bopp moo tax may mun naa ki gaayam jàpp ne bi day daanaka léegi mu daal di dakk di woo waa G7 ak képp kuy syndicat jàngalekat ngir ñu gën a sax ci waxtaan wi ak gouvernement gu réewum Sénégal gi nga xam ne pare na ngir def kémtalaay kàttanam ngir ndongo yi delluwaat ci classe yi njàng mi gën a ñoŋ ci réewum Sénégal boobee ca Kunkande ab lycée day lañ fa bëgg a taxawal boo xam ne ñaari téeméer ak fukk juróom ci million lañ ca war a def association bam taare turbine yéen a kaay ne ma fanweeri million day la ñuy saytu niki apport booba day kaay ma ngi may xamal ne ASP yi day ñu ngi ci jafe-jafe gu métti yéen kaay bi ne ma ba tey ca SAPCO ñetti weer a ngi nii juróom-ñaari téeméer ciy liggéeykat jotuñu salaire boobu la mandat ma may xamal ne dund gi day am ñu yaqin ne léegi mu wàññeeku ci réew mi moo Momar Ndaw bu asko seen ci 24 heures yéen kaay ne war nañu am ndaje tey jii nii ngir waxtaanee ceeb bi diw gi waaye itam suukar si source a moom waxtu woowu ma ngay woote wallu wallooy seen o ma ngay faagaagal askanuk réewum Sénégal facture yi daal dinay cher ba jéggi dayoo marquage yoo xam ne teguñu ko fenn la seen ori tegal askan wi ndox mi nag mar day taali la neefere lay xeeñ la soleil yéene kaay ne mën na am day sommet union africaine ak union européenne bu ci jógee saafara yu bëri dina am ñeel afrique ak dundinam l'observateur ne wax ji wax ji coupe d'afrique bi day ñaax suñu gaynde yi bokk na ci influenceurs yi ku ci mel ni mam bàll mbow ci l'observateur ne dafa mujj soppi boppam def ko supporter lépp rek ci bëggoon ndamu gaynde yi ñu des daane nit ak l'observateur gaa yi ney bëri na ci dëj yoo xam ni facebook la ñuy yégee tàgg gi kii moom nee na gaañu papam ma ngi ko yégee ci facebook boobaak léegi jafe-jafey cardiaque la am te loolee da koy topp giiru dundam ñu bàyyi xel sunu ñoñ yi feebar bàyyi xel ni coronavirus mi ngi ci réew mi te day faat yendu leen ak jàmm ginnaaw ba mu defee face to face diggante Ama Baldé Modou Lo